nit ki buy jàng Fatiha lan lay wax su waxee loolu lan la ko buur bi di tontu xam loolu dana la dimbali nga mën a concentré wu ci julli gi ba nga xam ne dara du la fàbbi ci julli gi di la xalaat loo football baag bëre baag marché baag te yooyu seytaane moo koy def wala tadruki seytaana yalabu bi qalbika waaw nee na bul bàyyi seytaane mukk muy foo ci sa biir xol di la loo fu nekk mu xalaat loola surtout léegi nga xam ne dañu nekk ci jamono joo xam ne nit ñi occupation yi dafa bari su doon ci farata la sax mu baax waaye la ca ëpp di ay caaxaani kese su boobaa seytaane pour mu foloo la lu yomb la day bàyyi ba nga kàbbar rek mu indi ca ya nga newoon waaw ah, te ñun bokk nañ suñu not damay wax ni jamono bii ñu toll fi seytaane gën a téye nit ñi football ci la bokk ci la bokk loolu moom mooy nattu bi nga xam ne kenn xamul fan la jaar nit ñi waaye poñe ne doomu aadama yi poñe goo xam ne bu xewoon julli jot lu bare ci jaam ñi yàlla dootul jot ci ñoom dana ci am sax naam ñu góorgóorlu waaye wallaay la ñuy dem ak la dikk yëpp xel ma daanaka ca football ba lay nekk waaw te loolu seytaane piir la moo tax buñ ci taxawul wallaay daa neex rek waaye ay li mën a yàq gis naa ci benn mbokk nee na moom buy dem stade day yóbbaale si jaadaam bu demee ba waxtu julli jot mu baleen fa nee na bëreeg football yëpp ci yam dana ko seetaani waaye dara du ko teree julli parce que nee bu julli jotee mu jël si jadam dem ci ginnaaw taxaw fa julli delluwaat toog ca kaw di seetaan ah ça xaw ma julli gi baax na am baaxul waaye ci ay caaxaan kep nga nekk yàlla nag mooy nangu waaye xam nga ne toog ci ab stade di seetaan di seetaan ba heure bi jot nga wàcc ndànk taxaw kàbbar gaay di tëgg di rëkk di riir di yuuxu te sa xel du dem ci ñoom jógee ci léegi léegi même pas une minute nga wàccee nii ci stade bi ak riir mi ak far ni mu méttee surtout ku far ba mu jaral la nga dem stade xam nga ko far googu sori na ci moom am na ku far te jaralu ko dara waaye far ba mu jaral la dem stade dëgg bi yee toog di seetaan waxtu julli jot nga gàddu sa sijaada wàcc julli ba jeexal match bi dara demul ci sa xel yuuxu yàgg yooyu yëpp nga fàbbi ko niveau boobu ku ca yegg dootoo seetaan football sax ku mën a yegg ci niveau julli ci stade. rir mag rëjjëx rëjjëx je yego ko ba julli ba sëlmal li wér mooy doo seetaanati football lol moy deug ndax dessé rek mo la taxa dem foofu waye comme nak wa zayyana lahum ash-shaytan a'maluhum shaytan daf nu xam cheytaane cheytaane dafa xam do madam do madam natto moy bëgg lu neex ak bëgg lu rafet lol moy suñu nat waaw zuyina li naasi hubu ash-shahawati min an nisaai wal banin shahawat yépp la do madam bëgg nay alal nay luxe nay jigéen lu nekk seytaane loolu la xam ba fa yooyu daf ko neexal daf ko neexal xaw ma lu mu ci xorom waaye ñëpp am nañ ne football moom ni ko nit ñi di seetaanee du sago du sago kenn xamul lan moo ci nekk nag waaye daal nee nañ neex na bi ci des day rafet dañ koy organiser ci façon boo xam ne taar ba da lay yéem loolu liggéeyu seytaane kese la te du dara lu dul occuper nit ñi ba fu leen soxlaa am leen fu leen yàlla soxlaa du leen am waaye li mu fàbbe ci ay pas-pas ak i ngëm-ngëm